dañ ñuy laaj ñu lan ngeen ciy def. ak lan leen joxoon lu ngeen ciy def rendre leen compte d' abord léegi leen a joxaat te ñun suñu xaalis loolu Abad mos ko en cause aujourd'hui nag quelqu'un comme Sonko remet en cause tout ça c' pourquoi son discours est plus dangereux c' pourquoi il est craint par la France c' pourquoi la France ne de lui c' est pourquoi la, la France ne vent au changement mon frère dama ne la le vent du changement va balayer tous ces gens là qui sont naa la sànq dañ koy defee par la voie Burkina ak Niger te Niger mun ñoo fexe ba andiwaat mun ñoo fexe ba andiwaat Bazoum Bazoum ñàkk na nguur gi c'est fini. Hmm. du ñëwaat au pouvoir li li leen daloon Mali bañ naan non par force. ak menaces am yi ak waaw wu ñu hmm. damay laaj rek ba ba embargo leen. waaw embargo nañ leen leen ne da ngeen di da ngeen di joxe nguur gi est-ce que euh, delloo nañ nguur gi euh, Ibrahim Traoré est-ce que menacé wuñ ko au Burkina la même chose ba embargo ko def nañ ko wala defuñu ko. Hmm. est-ce que tax mu dem. la même chose au Niger Niger nguur gi c'est fini Bazoum te Bazoum xam nga yéen nga xamul Niger Niger pour nga pour nga récupérer actuellement Bazoum est en otage actuellement pour nga dem jëli Bazoum il faut nga jaar ci camp militaire parce que ñoom du comme ñun ñun sunu palais nekkul ci biir ñoom seen palais présidentiel da ngay jaar ci camp doog fa yegg donc aujourd'hui militaires yi pour nga dem récupérer Bazoum il faut nga écraser eh, le camp militaire un deuxièmement aujourd'hui ñoom ils ont un c'est vrai que la France moo nekk derrière la CEDEAO mais ñoom aussi c'est Poutine qui est derrière eux maintenant man ce qui ma ce qui ma fait mal Moustapha mooy ñun ñu war a toog ñun africain di seetaan ay tubaab ñëw suñu continent di rey suñuy doomu réew parce que ñun ak Niger ak Mali Côte d'Ivoire yëpp benn réew lañ suñu tubaab yi tasul woon aujourd'hui ñooy bokk réew mhm. maintenant ñu war a taxaw ñun ñoom ñu jël seeni ressortissants parce que ñoom ñëpp jël nañ seeni avion jël seeni ressortissants yóbbuwaat seen réew mhm. bàyyi leen ñu ñëw seeni réew benn Ukraine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 mooy dafa nar a perte dix perte lestec xaw ma ndax xam nga loolu. si perte dix perte les teg mooy daa nar ëppal ba ñàkk lépp actuellement ëppal na ba ñàkk Mali. Mali amatu fa benn contrôle. Mhm. amatul benn contrôle au Burkina. amatul loo ko yeewoon général de Gaulle wax ko du ko gëm. Mhm. à cause d'un bambin de président un bambin de président Macron nekk fi di jël de mesures impopulaires.